Cheikh Béthio Thioune Cheikh Béthio Thioune mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1938 ci dëkk boobu nag di kër Samba Lawbe Diop nekki nag ci département bii nag di Mbour muy doomu soxna Bambi Thiam ak Serigne Koli Thioune moom Cheikh Béthio Thioune nag am na ñu bokk nag soxna Bambi Thiam ak Serigne Koli Thioune ñu mën cee ràññee nag maam Mbend Thioune bintu soxna Bambi Thiam bintu Serigne Koli Thioune soxna Fall Thioune bintu soxna Bambi Thiam bintu Serigne Koli Thioune Serigne Giley Thioune ibnu soxna Bambi Thiam ibnu Serigne Koli Thioune Serigne Ahmadou Dieye Thioune ibnu soxna Bambi Thiam ibnu sëriñ koli cuun soxna ndey kumba cuun bintu soxna bambi caam bintu sëriñ koli cuun sëriñ mamudu faal cuun ibnu soxna bambi caam ibnu sëriñ koli cuun sëriñ sàmbalaw be juub cuun ibnu soxna bambi caam ibnu sëriñ koli cuun cey yaasin joor cuun ibnu soxna bambi caam ibnu sëriñ koli cuun ak moom seex beeco cuun ibnu soxna bambi caam ibnu sëriñ koli cuun juróom-ñett nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak moom nag muy juróom ñeent ngir xamale leen nag mbooloo moomu mu bokkal waajur wu jigéen ak waajur wu góor nag ñoom ñooy ñan doomu doomu ndeyam ji nag di soxna Mbenda Cuun aawop Sàmba Lawbe Jóob nag lañ ko tuddee bi matee dem kër sëriñ Ahmadu Faalu Waree nag lañ ko joxoon taalibeeb sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde ma nag la woon mook sëriñ Ahmadu Faalu Waree itam nag am nañ ak njaboota doomu ndeyam ji nag di soxna Faat Cuun ñaareelu Sàmba Lawbe Jóob nag lañ ko tuddee bi matee dem kër alaaji Antu Mbay nag lañ ko joxoon mook alaaji Antu Mbay itam nag am nañ ak njaboota doomu ndeyam ji nag di ndey Kumba Cuun bi mu matee dem kër sëriñ Sayar Caam nag lañ ko joxoon mook sëriñ Sayar Caam itam nag am nañ ak njaboota yaayam ji nag di sëriñ Gileye Cuun maamu Sàmba Lawbe Jóob nag lañ ko tudde di Gileye Fatma ci 2014 nag la génn àdduna na fa itam nag ak njaboota mi ngi ci armeer yi bàq yee itam nag ñu denc doomu ndeyam ji nag di Ahmadou Dieye Cuun chef de canton nag bi wuutu Sàmba Lawbe Jóob lañ ko tuddee moom itam nag mi ngi ci armeer yi yi itam nag ñu denc doomu ndeyam ji nag di sëriñ Mamadou Fall Cuun seen waajur nag sëriñam nag bu mu joxoon boppam di sëriñ du Fall Kuul bokkoon itam nag ci taalibey sëriñ Mbàkke Buso yi moom itam nag la ko fayee sëriñ Mamadou Fall Cuun mi ñi ngi ko gën a xam nag ci sëriñ murit cuun doomu ndayam bii nag ñuy wax cey yaasin joor cuun guddul aw fan ci ak tuut tànkam itam nag la génnee àdduna ak moom seex beeco mii nag ñu fas yéene waxtaane tey jii bi mu feeñee jamono doomu bàjjanu sàmba lawbe jóob di beeco jóopa moo ko jël nag tudde ko boppam booba itam nag fekk na sàmba lawbe jóob nag génn àdduna ci atum 1933 ñi nag mooy soxna bambi caam cosaanam nag mooy caajaay bi mu ñëwee nag ci loxoy sëriñ kuli cuun mi la am ak moom nag njaboot gii nag ñu leen tuddal sëriñ kuli cuun cosaanam nag mooy mbuul nag mi ngi ci wetu dëkk bi nag di riisoo faal ci suuf soosu nag di kajoor ci dëkk boobu itam nag la bàyyi ko fekki sàmba lawbe jóob itam nag mbuur ci suuf si nag di kër sàmba lawbe ñu wax leen sax lan moo tax nag seex bee ca cuun feeña jamono nag ci dëkk boobu nag di kër sàmba lawbe jóob waajuram nag sëriñ kuli cuun dëkk bu ñuy wax kuul nag ci kajoor nag la cosaanoo buur bii mu àndaloon nag di sàmba lawbe jóob ci dëkk boobu itam nag la cosaanoo suñ boroom itam nag dogaloon moom sàmba lawbe jóob nag mu bokkoon itam nag ci sëti buur yi nga xam ne nii jàngoon nañ nag lii di nasaraan ginnaaw bu mu génnee nag ci njàng moom nag mu doon jàng ci la ko administration nag bi fi newoon defoon nag chef de canton ci tundu kajoor woowu nag bi mu nekkee foofu nag ci tundu kajoor woowu lañ ko jëlee foofu nag affecté ko nag ci département nag bu mbuur ci suuf si nga xam ne moom mooy ñanig nag ak mbayaar nekkit nag ci petite côte bi mbaaxaan nag mii doomu Lat Joor nag la fa wuutu woon ginnaaw bu mu ñëwee nag lañ ko installé nag ci dëkk bii bi mu ñëwee nag ci dëkk boobu nag di mbuur biir mbuur itam nag na xamal nag administration bi nga xam ne nii bëggoon a dëkkal foofu fii ngeen ma dëkkal nag ci mbuur dafa xat nag ci man damaa yorub jur damaa yor nag ak njaboot a a dëkkal loolu itam nag moom moo waraloon itam nag bu mbuur boobu suuf soosu nag moom la tudde nag kër Samba Lawbe ci bi muy déplacé wu nag kuul nag di ñëw nag mbuur waajuru Cheikh Béthio itam nag bokkoon na nag ci ñim àndaloon nag di sëriñ Koli Cuun ginnaaw bu ñëwee nag installé ko nag ba noppi moom sëriñ Koli Cuun nag daa delluwaatoon nag ci dëkk boobu nag di kuul doon def itam nag saa su ne itam nag muy déplacé wu di ñëw mbuur itim ba mujj gi nag la ko Samba Laobé nag xamal ne da ngay toog itim nag ci man moom Serigne Coly Thioune nag mu koy xamal ne fële ca Kajoor nag responsabilité ya ma fa joxoon itim nag munuma ko faa ba nag di ñëw fii Samba Laobé nag di ko xamal ne bépp responsabilité nag bu ma la joxoon danaa la joxaan nag lu ñu toll fii moom Serigne Coly Thioune nag bi mu ñëwee Samba Laobé Diop itim nag ci biir këram itim nag la ko dëkkaloon lii nag moo ko jëlee nag ci dëkk boobu mu cosaanoo nag di kuul indi ko nag kër Samba Laobé moom Serigne Coly Thioune nag bi ma matee jël soxna la Samba Laobé Diop nag dem caajaay fekk fa nag soxna suñuy wax nag soxna baam Bambi Caam jël ko nag indi ko nag jébbal ko nag sëriñ Koli Cuun mii mu nekk ak moom nag kër Sàmba Lawbe Jóob ba doom jëm fa njëkk am itam nag Sàmba Lawbe Jóob mii nag lañ ko tuddee laataa Seex Béthio Cuun nag di feeñ jamono nag ci atum 1938 Sàmba Lawbe Jóob itam nag génn na àdduna nag ci atum 1933 baneen chef de canton nag biñ fi indi woon di Ahmadou Jéey dafa wéyoon nag di jox nag ay responsabilité waajuru Seex Béthio mii doom jëm amaatoon itam chef de canton boobu nag di Ahmadou Jéey nag la ko tuddee bi Seex Béthio nag feeñee jamono nag ci atum 1938 doomu bàjjanu nag Samba Lawbe bi di Béthio Diop mu fob Cheikh Béthio nag tudde ko boppam ginnaaw Ahmed Dieye moomu nag wuutu woon nag Samba Lawbe Diop ku ñuy wax Socé Fall itam nag moo fa wuutu woon nag Ahmed Dieye Socé Fall moom itam nag bi mu ñëwee dafa wéyal lépp loo xam ne nii nag ña ko fa jiitu woon nag wéyaloon nañ ko ci Serigne Koli Cuun mii Serigne Koli Cuun nag ku baaxoon la nag ci ab canton du la yàqal te dana la defaral ci Socé Fall mii nag ci la chef de canton nag tàmbalee jeexee nguur gi nag tàmbalee fàq Béthio Diop mi nga xam ne nii nag moom luñ tudde woon nag Cheikh dëkk bi ñu cosaanoo woon nag ngir ñëw mbuur di kuul ci dëkk boobu di kuul nag la génnee àdduna ci dëkk boobu di kuul itam nag lañ ko denc waajuru Cheikh Béthio nag dem Pikine itam nag nekk fa Pikine googu itam nag la génnee àdduna ñu denc ko itam nag ci armée yi Pikine yi sàmbalaw bi Jóob nag mi leen yóbbu woon foofu itam bi mu génnee àdduna nag ci atum 1933 ci biir këram nag lañ ko denc di kër Sàmba Lawbe njaboot gi nag daal di tàmbalee nag tasaaroo ma wax leen nag jëmm jooju nag di Cheikh Béthio lan moo ko booleeg Sëriñ Tuubaa Cheikh Saliou Mbacké ginnaaw bu mu feeñee nag ci dëkk boobu nag di kër Sàmba Samba Lawbe ci atum 1938 buur bii indi woon nag waajuram nag kër Samba Lawbe nag di Samba Lawbe Diop dafa génn àdduna nag ñaareelu buur bi nga xam ne ni nag moom moo remplacé Samba Lawbe moom di ki ñuy wax nag Ahmadou Dieye ginnaaw bu mu ñëwee nag ba jël fonction dafa wéel nag li nga xam ne nii nag moom la buur bi Samba Lawbe nag wéeloon ci waajuru Cheikh Béthio Thioune mii nag di Koli Thioune ci la Ahmadou Dieye itam nag jëlee Koli Thioune déplacé ko nag ci dëkk bii ñu tuddee nag Taset Taset nag digganteem ak Thiès ñaar fukki kilomètre ginnaaw bu fa sëriñ kuli cuun nag demee tool yam fa amoon nag di fa liggéey la amoon benn bis nag ci waxtu ruuca mu yabaloon ay doomam nag ñu xëyee nag ruuji doomam mi nag mooy sëriñ gilee cuun ak seex beeco cuun mii ginnaaw bu ñu xëyee nag di ruuj nag ba yoor yoor bi dëgër la fa sëriñ tuubaa seex wu mbàkke nag jaar ci benn nag watiiru fas seex beeco cuun itam nag ginnaaw bu mu gisee watiir ba dafa bàyyi nag lam doon def nag daw topp nag ci ginnaaw watiir ba bi saaliwu mbàkke xamee na nag am na tuut tànk nag bu topp nag ci ginnaaw watiir bi la taxawloo nag doon dawal nag watiir bi doon xamal nag Cheikh Béthio Thioune kaay nuyoo ginnaaw bu Cheikh Béthio Thioune nuyoo ba noppi nag laaj na ko itam nag nu mu tudd moo ko itam nag nu mu tudd Serigne Saliou itam nag di ko xamal ne su ngoonee nag na ngeen ma fekk seen kër Baye Isma Diouf noonee ko Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke waxee woon nag Cheikh Béthio Thioune nag ak magam ginnaaw bu ñu wàccee tool nag ba ngoon lañ dem nag kër Serigne Isma Diouf fekk fa nag Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke ñu teewlu nag li ci Cheikh Béthio Thioune wax ci gisee mag Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke kaddu yi nag Cheikh Béthio Thioune nag mi ngi ko yëkkati ci waxtaan nag wum séqoon nag Pape Ngagne Ndiaye sama baay béykat la woon te ku am doom bu waree toll ci mën a béy nanga nga ko yebal ca tool ya maag sama mag sa jille ci woon noo bokk ndey ak baay maa topp ci moom dafa am bis sama baay di dem leen ca tool ya ngeen rooj nu dem di rooj fa la nu sëriñ saaliwu romb ak suba dugg ci watiiru fas man lu xunjooru gone bi ma gisee sëriñ bi ci watiiru fas bu romb nu ma gis watiir bi romb nu ma sëpp sama bopp ma daw topp watiir bi sëriñ bi daal di coché bi taxawal mu taxaw mu ni ma gees ni ma ndongoli kaay nuyoo fi ma toll ci ginnaaw watiir bi laa tàllal sama loxo ci ginnaawam mu wuññeeku jox ma loxo te maa ngi koy réccu barke sëriñ Touba waaye xam nga ne waroon na maa dem ca kanamam sukk ci suuf tàllal ko samay loxo ci kaw booba xaw ma ma tàllal ko sama loxo ca ginnaaw mu wuññeeku jàkkaarloo man jox ma loxo mun ma ndongoli noo tudd ma ne ko man beeco laa tudd mun ma noo sant ma ne ko cuun mun ma foo dëkk ma ne ko dëkk bee nga génne léegi ñu di ko taset mun ma kee ca tool ba kada ma ne ko saama nga noo bokk deeg bàyyi mun ma nu mu tudd ma ne ko gille cuun la tudd dinaa dellu si ci dëkk boobu nga wax di taset ngoon yaag sa mag jee na ngeen ma fekk kër sa bàyyi Isba Diouf nu liggéey ba ngoon nu wàcc sangu sol suñu yére dem kër bàyyi Isba Diouf danoo séen rek daal di yëkkati loxoom ni nañ leen may ñu jàll mag ñi daal di séparé wu ñu jaar ca ba si ci moom danoo ñëw rek ni rot laalal taxaw tàllal ko loxo nuyoo ba noppi mu toog na ci suuf ñu toog maa ngi ko fekk muy waajal attaaya baraada ba jëkk a ñor ba mu xellee cib kaas tollantiwul beneen kaas sama benn kaas ba la xelli mu daal di yëkkati kaas ba mu jëkk a xelli ba bu ko yëkkatee mag ñi ku ne talal say loxo mu naa nii loxoom te xal yëkkati kaas ba teg sama loxo ñaareelu kaas ba mu yëkkati ko teg sama loxol ba door na nga geesu mag ñi te booba ci juróom-ñetti at lañu war a toll ginnaaw nag bu cheikh bi gisee ak sëriñ Touba Cheikh Saalihu Mbàkke ba noppi ñenn nag ci waa dëkk ba dañ doon xamal cheikh bi nag ak magam gisuñu nag fenn nag fu ngeen jébbuloo nag ci sëriñ Saalihu kon nag yéen nag nekku leen nag ay murita loolu itam nag defoon na pëjj pëjj nag ci ron cheikh bi ay fan yu néew nag lañ ci teg déggaat sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke nag ci beneen dëkk bu ñuy wax nag kër Abdoulaye Diaw kër Abdoulaye Diaw googu nag lañ fekk nag sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke ci ay tool nag ñu ko fa doon bayal di ko xamal ne ba nga ñëwee daal ci dëkk boobu nag di taset bañ nuyu la fa saa bu ñu waa taset nag di laaj yéen ay murid ngeen waaw wala déet ñu leen di xamal ne nag ay murid lañ ñoom nag dañuy wax ne gisuñu fenn nag fu ngeen jéppuloo sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke nag di leen tontu ne ñooñu de juum nañ man de kero ba ngeen ma nuyoo nag laa leen boole woon nag ci sama ñooñ waaye nag kaar yi def nag ni ko murid nag di baaxoo di def nag mooy jébbulu kër Abdoulaye Diaw googu nag lañ jébbuloo nag ci sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke nekk nag am murit nu dégg ni sëriñ Saliou ñëw na kër Abdoulaye Diaw ci ay toolam yu ñu koy liggéeyal maag saa mag ja nu daal di dem fekk ko fa ñu ko nun ah, kat Mbacke dañ leen di nu murit la nu léegi ba nu ko waxee ñu dinu ree waaye yéen ngeen daa murit ngeen di jébbaluwu leen mu na ah, booba de juum nañu booba de fekk dama làq leen ci njaboot gi ñu ñooñe de booba dañoo xamul waaye yéen de booba fekk dama làq leen ci njaboot gi mu waaye nag ñëw leen def ko ni nit ñiy defee ndax buñ leen gisee xam ne yéen di mukk moo nu waxal ci làmmiñu boppam jébbal naa la sama bopp nee leen jébbal naa la sama bopp nu nuy sëriñ Saaliw jébbal nan la suñu bopp addina alaxira mu ñaanal lu tifli du nangu sunu njëbbal ka yi la demee sëriñ Saliou sunu daje baag moom bu musibaam ndax booba sunu bàyyi danoon bu ngeen màggee dama leen di jàngal woy ngeen di woy seen giir yi kon musibaam kon àddina tukki jàngaloo woon woy kon musibaam lii nag moo ko booleeg sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke waaye Cheikh Béthio Thioune nag daana wax ne seen waajur woon nag daana leen xamal ne saa bu ngeen matee xam dara nag dinaa leen jàngal nag ay way ngeen di man di am dara nag ci seen giir yi gis googu ñu gis sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke nag moo ko fànq ca déwén sa nag la ko waajuram nag dugal école ci mois de novembre nag ci atum 1947 nag la dugg école muy école française nag régionale nag bu Mbour ba ci atum 1952 CI ba C2 nag la fa def ci atum 1952 nag la dem nag ci Thiès wéyal nag am njàngam fa la amee nag diplôme nag bi mu njëkk am muy certificat ci atum 1955 nag la ko am mu dem nag ci lycée nag moderne bu Thiès ñu gën koo xam nag ci Malick Sy nag jamono jii fa la amee nag ñaareelu diplôme muy BPS ñu gën koo xam nag ci BFM jamono ji ci atum 1959 nag mu wéyal am njàngam dem nag ci lycée nag Faidherbe nag bu Saint-Louis ca at ma ca toppaat lañ ko yóbbu nag ci lycée nag Lamine Gueye ginnaaw bu mu jógee nag lycée de la force ci Ndakaaru comme instituteur ci dëkk bu ñuy wax nag Añaak Añaak nag mi ci département nag bu Ziguinchor ñaari at nag la fa def fa jóge fa nag ñëwaat Thiès ci école nag centre de course ci école centre de course boobu nag la jógee nag ci lépp loo xam ne nag dafa soxal nag wàllu jàng nag lañ ko def nag délégué médical comme directeur nag administration rurale ci dëkk bu nag lañ ko def inspecteur nag de expansion ci suuf si nag di Sine Saalum juróomi at nag la fa def ginnaaw Sine Saalum googu nag la defi formation professionnelle ci école nationale nag d'économie appliquée ñu gën koo xam nag ci ENA mu nekk fa nag inspecteur nag d'animation ci département nag bu Tiwaawoon ci atum 1973 nag la ginnaaw bi nag lañ yokkaat nag dara jaam def ko nag inspecteur nag régional ci wetu nag ministère nag de la jeunesse ak sport ci dëkk bii di Ndakaaru ginnaaw foofu nag la fa jóge dem jàngi nag administration et de magistrature diplôme nag ba mu fa amee mu bokkoon itam nag ci promotion Gabriel Darboussier ci atum nag la mook Ousmane Tanor nag ñoo génn ndoo foofu ginnaaw bi nag lañ ko intégré ci ministère nag de l'intérieur comme administrateur civil ginnaaw bi nag lañ ko nommé administrateur nag municipal nag ci région nag bu Diourbel foofu it nag ci njaareem itam nag moo fa njëkk a organisé ci atum 1977 nag de l'indépendance nag fête de l'indépendance teewe woon na ko ginnaaw bi nag lañ ko jëlee njaareem yóbbu ko nag Kaolack mu nekk faytim nag comme administrateur ginnaaw Kaolack nag lañ ko def nag secrétaire nag général ci commune Pikine ginnaaw Pikine nag lañ ko defaat nag secrétaire général ci communauté urbaine nag bu Ndakaaru fanweeri at ak juróom-ñett nag la liggéeyal nag réewam mu jël nag retraite ci mois de janvier nag ci atum 1996 muy administrateur nag civil principal de classe nag exceptionnelle mu doog a ñëw nag installé nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba ci quartier bii nag di Janatul Mahwa bi fi nekkoon nag di sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke nag jox ko nag suuf su takkoo takkoo takku nag ci quartier bii nag di jannatul maxwa ak quartier yi wër nag jannatul maxwa mu bokkoon itam nag ci ñu gënoon a sës nag ci xalifa général des mourides nag bi fi nekkoon ci mois de novembre nag ci atum 1996 lañ ko jox nag communauté rural nag bu Touba mu wuutu fa nag sëriñ Mewnu Jaxate ba ci atum 2000 nag la fa jógee laataa mu fay jógee itam nag lu bare bare bare bare nag Cheikh Béthio itam nag def na ko itam nag ci bi mu nekkee nag président communauté nag taxi yi nga xam ne nii nag ci lañ doon fayee juuti mu indi woon fi nag coow lu rëy rëy rëy nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba mu nekk itam nag ku liggéey itam ci diirum nag li mu jiite commune rurale nag bu Touba budget bi mu fi fekkoon commune rurale bu Touba nag di ko doxee Cheikh Béthio Thioune itam nag yokku na ko nag yokku nag bu amul dayoo bi muy jot commune rurale bu Touba ci ñaar téeméeri millions yu teg juróom-ñett akus lëf nag la fi fekkoon ginnaaw bu mu ñëwee nag yóbbu na ko nag ci juróom-ñetti téeméeri millions ak fukk yu tegu lëf ci mois supprimer nag taxe yi nga xam ne nii nag moo fi indi woon coow nag te Cheikh Béthio itam nag defoon ko fii muy juuti nag biñ doon fayloo nag doomu aadama yi mu wéy nag jiite nag commune rurale nag bu Touba ba ci atum 2000 ci atum 2000 nag lañ defoon nag mboolem communes nag yooyu nag ñu defoon communes yi commune rurale nag bu Touba nag mucc ci ci la nag Cheikh Béthio Thioune nag ñàkkee itam nag président commune rurale nag bu Touba mu nekki nag ku doyloo borom jamono li ko dalee nag ci atum 1946 ba ci atum 57 bi nga xam ne nii nag ci la ko Cheikh Saliou Mbacke nag seexal ku ñuy a jébbalu nag la nag ci biir daara ji Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke nag am ko ci daara ji moo ko tabax ci mbooleem nag daara yi liggéeyal na Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke nag jumaa itam nag ci dëkk bu sell bi xel koom itam nag diggante ndéqi ak dajaleeg naaf bi itam nag ci diirub li fi Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke nekk Cheikh Béthio woote cuunitim nag la ko daa sasa bi sëriñ seex saaliwu mbàkke nag goree janatul maxwaa ci tuubaa junniy pàkk nag ak juróom la jébbaloon nag seex becco cuun di ko xamal na nag saa bu doyut ma dolli la ci biir junniy pàkk ak juróom yooyu ci la péncum seex becco mi nag nekk bi ñuy defar police bi itam nag ci atum 2005 bu ñu wëree nag terrain nag boo xam nii nag fa lañ war a def police bi amuñu ko seex becco cuun itam nag moo wàññi am péncam police bi nag doog faa mën a nekk bi sëriñ saaliwu mbàkke nag goree xel comme ci atum 1991 doon na xamal nag murit seexul xaddim nag defoon ci mag ñim àndal laa bëggoon a def nag ci gone yi ma fekkanteel jamono Seex Béthio Thioune itam nag ci jamono jooju ñetti téeméeri doomu aadama ak fukk ak ñett nag la jébbal Serigne Touba Seex Saaliwu Mbàkke ginnaaw bi na ab mbooloo nag indil ko nag Serigne Touba Seex Saaliwu Mbàkke ci mbooloo moomu nag mu doon dajale nag di ko yit ñëwee nag ci Seex Béthio Thioune di ko xamal ne sélection bii ngay sélectionné nag ay gone ngir ñu dem na xel koom ñun ñi nga xam nii nag dañoo dañoo am ay soxna ba noppi nag dafa mel ne bokku ñu ci bu fekkee ne nag naru ñu cee bokk soxna yi nga ñu mayoon nag ñoom lañ bëgg a wàcc nekk nag ay célibataire dem nag liggéeyal sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke nag ci Xelkom ji Cheikh Béthio Thioune nag mu ngi doon xamal Cheikh Béthio Thioune gone yu toll nag ci juróom-ñetti at ba toll ci mat a jël soxna nag te amuñu ko at yu toll nag laa soxla nag ci suuf soosu nag di Xelkom Cheikh Béthio Thioune nag di ko xamal ne egg nañ ci ne bu buñ munta dem xel koom nag ñu wàcc seeni soxna nag ngir dem liggéeyal la sëriñ tubaa seex saaliyu mbàkke nag doon xamal cheikh bi ne ñooñu moom may na leen ñu dem xel koom nag yóbbaale seeni soxna wala ñu dem xel koom nag continuer nag yor seeni soxna ñooña nag ñu man kee ràññee cheikh ibra faal soxna sim dëkkoo woon nag mooy soxna kinne ba ak ku ñuy wax nag pape moussa faal ñu gën koo xam nag ci sëriñ saaliyu faal soxnaam nag moo tuddoon soxna ami sàll ak moussa fay soxnaam nag soxna ngóone sëy ak ku ñuy wax nag sëriñ ngañ sàll soxnaam nag mooy maam loo ñeent ñii la sëriñ tubaa seex saaliyu mbàkke mayoon nag ci mbooloom Cheikh Béthio Thioune moom ñu wéy nag nekk xel koom nag boole ko nag yor kër ba tey ci diggante Cheikh Béthio Thioune ak Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké nag moo ko xamaloon ne Touba nag bari na ñu fi ñëw seen loxo nag jotul seen ginnaaw ñooñu itam nag su ma sañoon itam na liggéeyal ca Serigne bi ma wootee nag ñëpp a ñëw na nag Cheikh Béthio nag taxawal nag li ñu tuddoon waañ yi ci quartier yi nga xam ne nii nag ñoom nekkoon Touba li ñu tudde nag ay berne nag ci màggaluk Touba gi mu nekkin nag ku Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké nag am ci moom yërmande biñ ko affecté ci Kaolack dem amoon fa nag jafe-jafe fay nag xaalisa sëriñ tubaa seex saaliyu mbàkke nag moo ñëw nag ci magam sëriñ tubaa seex abdul ahad mbàkke di ko xamal ne dégg naa nag fee seex beeco nekk nag ci kaw la dañ koy waaja jàpp suñu demee nag bu mënuñu koo ñàkk bañ a jàpp nañ fab kaso bi nag def ko ñaar benn bi di man benn bi itam nag di moom ci mois de juillet ci atum 1997 bi fi coow amee nag ci diggante isbu tarxiya ak sëriñ moustapha mbàkke saaliwu boroom jamono nag moo sàkku itam nag ci seex beeco nag mu dem ndakaaru ñaar fukki fan nag la fa seex ba def ngir mu bañ nag coow li nag këpp ci kawam digganteem ak sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke sëriñ Touba Cheikh na Mercedes boo xam ni sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke nag moo ko ko joxoon yor na ko ci diirub nag lu ëpp fukki at nag ak juróom moom la ko sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke jox doon xamal nag góor a jéey mi koy dawalal na dem Ndakaaru nag jox bi nag Cheikh Béthio di ko xamal nag bu administration bi nag jëlee oto bi mu ko joxoon mu jël oto boobu nag di ko dawal nag ba keroog nag muy amaat oto ba tey ci digganteem ak sëriñ Touba seex Saliou Mbacke am na nag ay jigéen nag yu bare baree bari nag yu tolloon nag ci dem kër bi mu woowee seex bi nag da doon xamal ne na leen booleeg nag ñu leen mën a yor jigéen ñooñu nag ci kër soxna yi sëñ bi nag lañ jóge woon ba tey ci digganteem ak sëriñ Touba Seex Saaliwu Mbàkke ndigal nag li ko sëriñ Touba Seex Saaliwu Mbàkke nag mujjee jox na nga fonk màggaluk Touba gi na nga fonk itam nag gàmm bernde itam nag na koy dëkke xasiday Seexul Xadiim itam nag na ko fonk loolu moo waraloon itam nag Seex Béthio Thioune féete woo woon itam xasida gi ñu tudde Midaadi ba am na doom ju mu faye sëriñ Touba Seex woowee mu wéy nag di dëkk nag di cant nag sëriñ tubaa cheikh saalihu mbàkke cant googu nag mu daa amal amal na ko nag ci ay dëkk nag yu wuutee wuutee ba nim ko amale nag ci dëkk boobu nag mu feeñe woon jamono di kër sàmba lawbe jóob ma wax leen sax lan moo tax nag mu delluwaat nag ci dëkk boobu nag di kër sàmba lawbe jóob di dëkk boo xam ne nii nag fa la feeñe jamono doomu maxtaar jóob bii nga xam ne nii itam nag maamam nag lañ tudde nag seex beecoo di soxna xari jóob relation boobu nag mu amoon nag na seex bi nekk itam nag mu fekk na ngan nag gu seex gi nag daa amal ci dëkk bii nag mbuur bi cheikh bi ñëwee mbuur nag la ko fa soxna xari jóob mi fekk ci waxtaan woowu nag ñu séqoon nag ci mbuur ci la ko soxna si nag doon xamal ne mbuur gii daal ngay nag saa boo sa taalibe yi nag dañ koy daj nga ñëwoon nag ci dëkk bee nag di na nekkitim nag bi soxna xari jóob nag waxee lool nag cheikh Béthio cheikh Béthio nag lim tontu woon soxna si nag mooy loolu de moom lu am solo la damay waaj a dem xel koom xanaa nag da nga ñëw xel koom nag bi soxna si nag wéye leen ndigalul cheikh Béthio lool fekkit nag cheikh Béthio nag xel koom bi ñu eggee xel koom itam nag waxtaanaat nañ ca ci la ko soxna Xari Jóob itam nag présenté nag ki moomoon pàkk boobu mu bëggoon nag mu jënd ko muy ku ñuy wax nag Serigne Mor Dieng ci la Cheikh Béthio itam nag wooloo Serigne Babacar Mbaye nag di chef de village nag Touba Jannatu boole kook soxna Xari Jóob ak Mor Dieng moom ñu dem nag kër Samba Lawbe xooli nag suuf sa bi Serigne Babacar Mbaye ñëwee nag lay xamal cheikh bi ne mboolem pàkk boo masa am nag pàkk bi itam nag bokk na ci pàkk nag yi ci gën ci la Cheikh Béthio nag jënde nag suuf soosu mu toll nag ci ñetti hectare Mor Dieng moomu nag moo ko moomoon Cheikh jotee itam nag joxaatoon na soxna xari Jóob xaalis mu jëndalaat ko suuf nag ci dëkk boobu nag di kër Sàmba Lawbe Jóob ñaari hectare itam nag lu ko jëndalaatoon ku ñuy wax nag Maxtaar Jóob itam nag moo moomoon suuf sooso Cheikh Béthio nag demoon na nag ci Sëriñ Tuubaa Cheikh Saliou Mbàkke di ko xamal ne nag dëkk bee nag ma cosaanoo nag feeñee fa jamono laa bëggoon a delluwaat nag nekkaat fa Sëriñ Tuubaa Cheikh Saliou Mbàkke nag di xamal nag Cheikh Béthio nit ki de dëkk bu mu cosaanoo mu delluwaat fa nag nekkaat fa dana baax nag ci moom lu bare bari nag ci ay feebar wala lenn nag lu koy dal delluwaat nag ci sa dëkkub cosaan dana tax na nga mën caa mucc ci la Cheikh Béthio nag wéye la ndigalul Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké ñëw nag sañcaat nag foofu bi mu ñëwee nag loolu nag mu fa jëndoon tolloon nag ci juróomi hectare la tuddee nag Madinatu Salaama cig fàttali nag dëkk boobu nag di kër Samba Lawbe Diop bi fi Samba Lawbe Diop nag dëkkee ab diir bu néew itam nag la fa dëkk feebaru pest nag amoon fa ñu jëloon dëkk ba nag tuxal ko fi ñu ko tuxaloon nag fa la Samba Lawbe Diop nag génne àdduna foofu itam nag lañ ko denc fa dëkk ba tuxoo nag lañ doon wooye nag gent ba bi mu dellusee nag kër Samba Lawbe Diop googu njabootug Samba gi foboon nañ nag lu tolloog ñaari hectare ko ko nag ngir ko ko fobaatoon nañu itam nag lu tolloog téeméeri parcelle yu kaare itam nag joxaat ba tey pël yi nga xam ne nii nag ñoom ñoo dëkk itam nag kër Samba Lawbe Diop te seen maam nag àndoon ak Samba Lawbe Diop nag ñëw nekk fa ba fa Seex Béthio itam nag tuxusee foboon nañu itam nag ci suuf sañ fa am lu tolloog ñaari hectare itam nag jébbal ko Seex Béthio ngir ñoom itam nag ñu teeroo ko itam nag Seex bi suuf soosu nag pël yi joxoon Seex Béthio cuun soxnaam si ñu tudde nag soxna Ayda Jàlloo ci suuf soosu nag la dëkk suuf soosu nag la fa Seex Béthio nag bu ñëw nag bëgg a dëkk ak moom itim mu fab itim nag lu tolloog sa kër nag jébbal la ko lool nag moom moo waral nag Cheikh Béthio kër gi Samba Laobé nag njëkk a sanc nag ci suuf soosu nag di kër Samba Laobé Cheikh Béthio nag man caa jotaat kër googu itim nag moom la def nag kërug boppam dëkk boobu nag di kër Samba Laobé Diop Samba Laobé Diop moomu nag cosaanam dëgg-dëgg nag mooy waalo waaye dëkk bu ñuy wax kuul nag ci Kajoor nag la jógee njóobeen gim bokk itim nag maam ji ci gën a siiw muy Lat Diop Awa Mbay Cheikh Béthio nag am na ay soxna nag yu mu dëkkoo woon ci biir soxna nag yi mu dëkkoo woon soxna Aminta Fall nag bi mu njëkk a benn bant rek lañ am moo nekk nag ab taawam di soxna faati coro cuun yoraatoon na nag beneen soxna muy ku ñu wax nag soxna wàllu yàlla mbuupa am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ saaliw cuun gël tàppee di ki nekk nag ab xalifaam jamono ji ak soxna maane cuuna yoraatoon na beneen soxna nag muy ñuy wax nag soxna njaañu juufa ñu gën koo xam na ci soxna mboose am nañ nag ak njaboota muy ku ñuy wax nag soxna bambi cuuna maam mbend cuuna soxna saala cuun soxna maysa cuun sëriñ xaadim cuun sëriñ saaliw cuun soxna maam busa cuun soxna nday mbay cuun yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna faatu cuun am nañ ak njaboot mi ku ñuy wax sëriñ xaadim cuun député soxna jaxeer cuun ak sëriñ saaliw cuun sëriñ xaadim cuun député mii nag magam sëriñ ahmadu jéey cuun nag la ko tudde woon sëriñ saaliw cuun mii ku ñuy wax mbaaxaan nag la ko tudde woon soxna faati cuun mii nag meññ nag ñetti doomam yii ci loxoy seex beeco cuun itam nag la génnee àdduna mu yoraatoon nag baneen soxna nag bu ñuy wax nag mari mbay am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna faatu cuun mi mu tudde nag soxnaam si génn àdduna àdduna soxna Mari Mbay nag bi muy amaat nag ñaareelu doomam ci la ànd ak xale boobu nag génn àdduna mu yoraatoon nag baneen soxna muy ku ñuy wax nag soxna Aysa Kan am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag maam jaara cuun sëriñ saaliw cuun mii daa di Seydina saaliw cuun soxna may munatu cuun mi mu tudde soxna may munatu mbàkke borom laylatul xadar soxna fat jaxate cuun mi mu tudde nag waajuru sëriñ Touba Seex saaliwu mbàkke ak soxna fat ja cuun mi mu tudde nag taawu sëriñ Touba Seexul Xadiima yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna Ayda Jàllo am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag sëriñ saaliw cuun cuun daaru salaam sëriñ saaliw cuun jannatul mahwa sëriñ saaliw cuun xel koom yoraatoon na beneen soxna nag bu ñuy wax soxna batoor caam am nañ ak njaboota muy sëriñ saaliw cuun ngéejaan ak sëriñ saaliw cuun njurul yoraatoon na beneen soxna nag bu ñuy wax soxna ulimata saaw am nañ ak njaboota muy sëriñ saaliw cuun bordeaux yoraatoon na beneen soxna nag bu ñuy wax soxna décce pen waaye mook soxna décce pen nag amuñu nag ak njaboota soxna yi nag la cheikh béthio cuun dëkkoo woon njaboot yi itam nag la ci am mu wéy nag topp nag ci ginnaaw sëriñ touba cheikh saalihu mbàkke wéyit nag nekk itam nag ci dëkk bii nag di touba ci quartier bii nag di janatul maxwa yooyu itam nag nekk nag ci suuf sii nag di ndakaaru ci kër googu mu am nag ci maire Moussa ak suuf sii nga xam ne ni nag moom la am nag ci dëkk bii nga xam ne nii fa la cosaanoo nag feeñe fa jamono di kër sàmba Lawbe ba ci atum 2012 ginnaaw bu mu fa defee nag cant googu mu baaxoo nag di def di fukki fan ak juróom-ñaar nag ci weeru avril ba noppi nag mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag ay fan taalibeem bii ñu tudde nag Baara Sow ñëwoon na nag fekk si ko fa bu mu ko fa fekk see nag coow nag juddoo na fa nag seen diggante loolu nag ci ak fàttali jiitu na nag 2012 ngir fàttali leen coow li nag ci diggante Baara Sow nag ak Cheikh Béthio Thioune lan mooy dëgg-dëgg nag sabab bi wala lan moo ko waral nag ba Baara Sow moom nag mujj nag ñàkk ci bakkanam Baara Sow nag intellectuel la woon ci ron Cheikh bi itam nag la nekkoon ku gëmoon itam nag Cheikh bi la mujjoon na nag am ay jafe-jafe nag ak Cheikh bi ci ay kàddu yoo xam ne nag dana ko yëkkati kàddu yi nag buñ sukkandikoo nag ci kàddu Cheikh bi Baara Sow mbaara sow nag demoon na bay dépassé sax nag di wax cheikh bi nag yow yaay yàlla eggoon na itam nag di wax cheikh bi sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke yow cheikh bi nag yow yaa ko gën a foor cheikh Béthio nag doon na xamal nag baara sow awma nag lu dul sëriñ Touba seex Saliou Mbacke du ma nangu nag kenn tim nag di xeebal nag sama sëriñ lii daal bokk na nag ci lenn nag lu leen jotale ñu teewlu nag li ci seex bi wax. li mu demee mooy moom mënoon naa do mu gëm. nee man maa yàlla. nee na yow yaay yàlla. ma ne ko nag yow da ngaa jum ma nee maa yàlla taalibe bu ne sañ na ci yoonu tasawuf mu ne ab sëriñam yàllaam amul benn xam-xam bu ko mën a contre waaye taalibe akub sëriñam li dox seen diggante le lien le lien indispensable indestructible ineffable mooy ndigal nee naa ko bul ma waxati yàlla man jaabub sëriñ saaliw laa boo dee sëriñ saaliw yàlla maa ndi yow waaye nga bëgg maa teg yàlla man teg sëriñ saaliw leneen yow doo ni cheikh bi nag tere na ko ko tere nag waaye baaro sow nag wéy nag di yëkkati nag yooyu kàddu nag ci roon cheikh bi cheikh bi itam nag mujjoon na porte plainte nag baaro sow bañ arrêté woon baara sow nag ci kaso bi waaye diir bu néew itam nag la baara sow nag def ci kaso bi ñu bàyyi ko mu wéy itam nag di ñëw nag ci kër cheikh bi boole koog nag di yëkkatiwaat yooyu kàddu ne daal baara sow mii bayeboo nag ñu moytu ko ndax lépp loo xam ne nii daal moom moo ñu war a dal ci fitna wala nag ci aw naqar jort na ne daal ci jëmm ji nag la war a jóge mi ngi ñaax nag ay taalibeem yi nga xam ne nag ngi wéy nag di ko déggal nañ fexe nag saa bu ñu gisee baara sow ak kàddu yu mën di yëkkati buñ ko laal buñ ko wax dara nit ñu ko gëm bëgg ko nga taxaw ca kaw ni ko da ngay mu ni ko ma métti waaye ma xam ne seytaane ni ci moom te bu ma ko toppee musiba moo tax baara mi ni ku ko ragal la ndax baara mi fa mu jëm ak moom xamuñu ko seytaane la du leneen seytaane su nekk ci dugub yàlla lu yàlla musal ci baara barke Sëriñ Tuba ma ne ni ma ko ragalee fi mu ne ndax lu ne mën naa xew jóge ci baara bi moo tax rikwaay na ngeen ko moy na ko ñëpp yéen ñëpp laa wax rikwaay moyu leen te bu leen bu leen ju mukk ba yëkkati loxo ci baara sow leen ko def mukk jaay naa leen dana koy uuf lu nag wéy nag di des nag di ñëw nag ci kër gi di wéyitim nag di des itim nag di yëkkati nag kàddu yooyu nag muy yëkkati cheikh bi itam nag dajale woon na nag ay taalibeem di leen xamal ne itam nag Baara Sow mii kàddu nag yu man di yëkkati nañ fexe nag ba buñ ko laal nag te buñ ko def dara buñ ko laalee nag wala ñu def ko dara lépp luñ yaakaar ne nag mënu cee am nag ci fitna su boobaa itam nag fitna ju ñu toll nag mën na cee juddoo njor xalaat googu nag mu doon am nag ci ko ay taalibeem laalee nag mujj na am nag ci bisub dimanche ñaar fukki fan ak ñaar nag ci mois de avril nag ci atum 2012 ci la nag ñaari taalibe yi nag di Baara Sow ak Ababacar jaañ ñëwoon nag ci dëkk boobu nag di Madinatu Salaama kii di Ababacar jaañ nag dañ ko dóor balu fetal nag mu faatu Baara Sow nag jaasi nag lañ ko cor ginnaaw bu cantaakoon yi nag fobee ñaari jëmm yooyu nag denc leen ci suuf soosu nag di Madinatu Salaama xibaar bi nag daal di siiw ñu baree baree bari nag ci réew mi nag yëg ko nag ba ci bitim réew ba set nag di altine ñaar fukki fan ñett nag ci weeru avril ci atum 2012 procureur nag bi fi newoon di Ibrahima Ndoye ginnaaw bu mu defee nag point de presse nag ba noppi la gendarmerie nationale jàpp nag lu tolloo fanweeri nit nag ak juróom benn ci cantaakun yi fanweeri nit ñi nag ñenn ñi nag gendarmerie nationale nag moo leen jàppal seen bopp waaye ñenn ñi nag ñoom ñoo dem gendarmerie nationale yëbbal bopp nag gendarme yi ci bi nag ca la ñu jàpp nag cantaakun yi biñ ci tegaatee nag ñetti fan mu dëppoog nag bisub alximis ñaar fukki fan ak juróom benn nag ci weeru avril ci atum nag ba tey juge bi nga xam ne nii nag moom lañ dénkoon dossier bi muy Abdoulaye Hassan Assane Thioune ci la déglu nag cantaakun yooyu nag ñeenti yëf nag la leen doon toppee ñoom cantaakun ni muy suul doomu aadama nag te amoo ci sañ-sañ yor ngànnaay itam nag amoo ci sañ-sañ ba tey nag juge bi nag jàppoon na ne nag kuréel googu itam nag kuréelu def ko tu ñaaw téef la ak rey nag te tay ñeenti tuuma yooyu nag la juge bi nag tegoon nag ci seen kaw mu placé leen nag mandat nag de altine juróom-ñeenti fan nag ci mois de juillet ci atum 2012 nag ba tey ci la juge bi nag njëkk a déglu nag Cheikh Béthio Thioune ci mbir mi ci teewaayu nag fukki awakaanag ak ñaar yu cheikh bi ci tuuma tuuma yooyu nag mu teg ci kawam ajjuma ñaar fukki fan ci mois de juillet nag ci atum 2012 ci la mbooleem nag awakaay cheikh bi sàkk woon nag ñu bàyyi cheikh bi nag bàyyi ndégéndiku wér-gu-yaramam nag mayu ko nag muy nekk nag ci kaso bi waaye juge bi nga xam ne nii nag moom moo yoroon dossier bi dafa gàntaloon nag sàkkuteefu avocat yooyu li ko dalee nag ci ajjuma 20 juillet nag ci atum 2012 ba ci mois de janvier nag 2013 lii di avocat cheikh bi nag dañuñu nag saa sune nag di ñaxtu nag ñu jëlee cheikh bi nag ci kaso bi juge bi nag dafa wéy nag di lànk loolu ba ci mois mois de janvier nag 2013 ginnaaw ajjuma 20 juillet 2012 bis boobu nga xam nii nag ci la awakaay cheikh bi njëkk a sàkku nag ci juge bi mu bàyyi cheikh bi nag bàyyim négg ndiku altene fanweeri fan nag ci mois de juillet ci atum 2012 ci la juge bi yoroon nag dossier bi sàkkuwaat nag ci gendarmerie nationale ñu yóbbuwaat nag cheikh bi nag madinatu salaam ngir nag ñu mën a xamaat nag dëgg dëgg nag bis ba naka nag la meloon talaata fukki fan ak juróom benn nag ci weeru octobre nag ci atum 2012 ci la bi nag jëlee nag cheikh Béthio sa yóbbu ko nag ci kaso nag bu rëbës bisub altine ñaar fukki fan ak ñaar nag ci weeru octobre ci atum 2012 ci la cantaakun yi nag xëy nag ci mbeddi ndakaaru yi li ko dalee nag marché Sandaga centenaire nag ba ci rue bii ñu tuddee nag ponti téeméeri bus ak fanweer nag yu Dakar dem dikkitim nag la ñu yàq ak yeneen nag ay oto yoo xam ne nii nag ay particulier lañ bisub keroog itam nag am na ay taalibe yoo xam ne nii nag pale nag lañ bëggoon a teeri ji bisub keroog itam nag fi yëngu itam nag ci réew mi bari na li ko dalee nag université Cheikh Anta Diop ci bitim réew itam nag Mauritanie ci dëkk bi nag di Nouakchott France commencé tim nag ci dëkk bii nag di Paris ak faneen ak faneen nag diggu réew mi nag lu mel ne nag dëkk dëkkaan nga xam ne ni nag cantaaku ni itim nag ña nga fa bisub keroog itim nag doon rawatina nag dëkk bii nag di Mbàkke Bawal ak quartier bii nag di Jannatul Maxwaa nag te nekk itim nag ci Touba police itim nag ñim ci jàpp nag bisub keroog nag juróom fukki nit nag ak ñett moom nag yóbbu nañ leen nag ci yoon nag ngir àtte leen nag ci mbir mi alxamis fukki fa ak juróom nag ci weeru novembre ci atum 2012 juróom fukk ak ñett ñooñu nag ñu jàppoon nag ci manifestation yooyu ci lañ leen àtte nag ci Ndakaaru liñ leen doon toppee nag mooy yëngal dëkk bi nag te amuñu ci sañ-sañ bésub talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñaar nag ci mois de novembre ci atum 2012 ci lañ jëlee ci kasob rëbës nag ci pavillon spécial nag nag la Dantec ngir nag wàllu wérgu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent nag ci weeru novembre ci atum 2012 ci la àtte bi daanu nag ci ñenn ñi nga xam ne nii nag jàppoon nañ leen dañ doon turbale nag ci mbedd Ndakaar yi dañ tolloon nag ci juróom fukki nit nag ak ñett juróom fukki nit ak ñett ñi nag seenub àtte nag nii la tëddee ñaar fukki nit ñi nag ak juróom benn ñaari ati kaso nag lañ leen tëj tëj waaye ci biir ñaari ati kaso yi juróom benn weer yi moom dañ koy tëdd nag ci biir kaso bi yeneen juróom ñi nag ci juróom fukk ñeeg ñett ba tey ñaari ati kaso nag lañ leen di tëj waaye benn at bi nag moom dañ koy tëdd nag ci biir kaso bi mu des nag ñaar fukki nit nag ak ñaar nag ci fukk ñeeg ñett nag ba tey ñooñu nag moom dañ leen a bàyyi ndax toppee wuñ leen dara ci mbooloo moomu nag daan bi nga xam ne ni nag moom moo dal nag ci seen kaw téeméeri million ak juróom ñaar fukk nag lañ war a fay nag ndàmpaay nag société bii nag di dakaar dem di seen oto yi nga xam ne nii nag yàq nañ ko bisub keroog bisub alxamis juróom nag ci weeru décembre ci atum kenn nag ci avocat cheikh bi nag di maître El Hadji Diouf la sàkku nag ci ministre jooju di Aminata Touré ngir nag mu bàyyi cheikh bi ci kaso bi nga xam ne nii nag ci lañ ko denc dafa tombé woon nag nag Aminata Touré nag ñëw nag ci assemblée nationale ngir nag ñu nattal ko nag bi nga xam ne nii nag ci lay doxee nag ci ministère am boobu mu yoree ba tey bi nag maître El Hadji Diouf mi ngi sàkku itam nag ci ministre bi ñu yóbbu cheikh bi nag France ngir nag mu faju ji ministre nag de la justice di Aminata Touré bi muy tontu nag député bi nag koy xamal ne du ministre nag de la justice nag mooy maye nag bàyyi néggandiku juge bi nga xam ne nii nag moom moo yore dossier bi moom moo sañ a def nag moom moo sañ a bàyyi ministre bi nag Aminata Touré nag ba tey itam nag mi ngi wax ak député bi di ko xamal ne nag cheikh bi nag lépp loo xam ne nii nag war na itam nag ci moom justice nag mi ngi koy respecté loolu nag moom moo xew nag ci atum 2012 nag ci dossier nag Cheikh Béthio Thioune ñu dugg nag ci atum 2013 bi ajjuma fukki fan ak benn nag ci mois de janvier nag ci atum 2013 ci la bii nag ñu tuddee Ibrahima Doucouré wax ne nag wérgu yaramu cheikh bi ci moom nag ni ko saytoo jaaduwul nag ñu wéy nag di ko bàyyi nag ci kaso bi ginnaaw nag bu ñu toogee weer mu tombeek nag altine 11 février nag ci atum 2013 ci lañ doog a nag may cheikh bi nag autorisation nag boo xam ne nii nag dana ko bàyyi nag mu dem nag bitim réew nag ngir faju ji ba àjjuma nag juróom-ñaari fan nag ci mois de mars nag ci atum 2013 bi mu doog a nag mën a ñibbisiwaat nag ci réew mi bisub alxemis ñaar fukki fan ak benn nag ci weeru février ci atum 2013 ci la juge bi nag di doog a nangu nag ne li avocat yi nag doon sàkku ngir ñu bàyyi cheikh bi nag bàyyi néggandiku ci la ko nag juge bi nag di dooga nag nangu bisub talaata fukki fan nag ci weeru septembre ci atum 2013 kërug tuuma nag gi doon topp nag cantaaku ni bàyyi na nag lu tolloog ñetti cantaakun nag ci bis boobu ñett ñi nag mooy Alassane Ndiaye nekkoon nag ku jege cheikh bi ak ku ñuy wax nag Abdou Aziz Mbacke Ndour nekkoon sofooru cheikh bi ak ku ñuy wax nag Saliou Baro nekkoon itam nag sofooru cheikh bi itam nag ba tey procureur nag bu Thiès ci li nga xam ne nii nag moom la ko yoon tënkoon ngir nag bu ñu bàyyee kenn balaa mat ñetti weer nag mu signé nag aw këyit nag bu wane ne nag bàyyi nañ kooku këyit woowu nag yeex na koo signé nag ba mu ëpp nag ñetti weer yi yeexaay boobu nag procureur bu Thiès nag yeexaloon nag signé dossier bi baneen ministre de la justice nag bi fi nekkoon nag di maître Sidiki Kaba sàkk woon na itam nag ci administration nag bu justice ñu defal ko nag ay saytu ci lan moo tax nag dossier yi nag di yeex nag loolu nag mooy li mujjee xew nag ci atum 2013 ajjuma fukki fan nag ci mois de janvier ci atum ci la yoon nag wax ne lépp loo xam ne nii daal ñu ngi ko wax nañ ne nag yaa def daañ la yóbbu nag ca fa ñuy àttee nag reykatu nit ñi muy chambre criminelle jeudi fukki fan ak ñett nag ci mois de mars nag ci atum 2014 ci la yoon nag xamlee ne lépp loo xam ne nii daal bokkul woon nag ci dossier bi nag maanaam nag mënatuñ koo nangu nag ngir mu bokkaat ci ajjuma fukki fan ak ñeent nag ci mois de mars nag ci atum 2014 bi ci la awakaay cheikh bi ñenn ñi wax ne seen ak nag seen yeleef ci wàllu dossier bi nag joxuñu leen ko ñenn ñi nag toog nag te seen bopp ñenn ñi itam nag gedd ñoom nag liñ doon sàkku nag ci yoon nag mu àtte mooy yoon nag dafa mel ne dafa jeng ndax ci benn côté bi rek la gënoon a jox nag gëdd dossier boobu nag mu mujj nag ci atum 2014 bi ci atum 2015 nag dara nag lu soxal dossier bi nag luñ mën a wax nag xewu ci ci atum 2016 bi bisub talaata ñetti fan nag ci mois de mai nag ci atum 2016 ci la nag cantaakun yi nga xam ne nii nag ñoom lañ jàppandoo woon ak cheikh bi tàmbalee ñaxtu nag ci kaso bi di wax ne daal lu tollu ñeenti dossier daal àtteen nañ ko nag ci biir tribunal bi waaye ñoom bënn nga ni nag kenn boolewu leen ci te loolu itam nag mën naa ñàkk dimanche 25 atum 2016 ci la nag ministre nag de la justice nag maître nag Sidiki Kaba xamle nag ci benn émission nag ci RFM di wax ne nag ñooñu nga xam ne nii nag ñoom ñooy ñaxtu lépp loo xam ne nii daal moom moo aju daal ci seeni mbir nag noppi na wàllu àtte nag juge bi nag moom moo ko yoree samedi fanweeri fan nag ci mois de septembre nag ci atum 2017 ci la cheikh bi nag jógee France dellusiwaat nag ci dëkk boobu nga xam ne nii nag ci la xew-xew bi amee woon nag muy madinatu salaam altene ñeenti fan nag ci weeru décembre nag ci atum 2017 kenn itim nag ci mbooloo mi ñu jàppoon ku ñuy wax nag sàkku itam nag ci juge bi mu bàyyi ko nag bàyyi ne géndiku àjjuma fukki fan ak juróom nag ci weeru décembre ci atum 2017 ci lañ bàyyi nag lu takkoo takkoo takku nag ci mbooloo mi nga xam ne nii nag jàppandoo woon nañ leen nag cheikh bi ginnaaw nag buñ tëddee nag lu toll ak juróomi ati kaso ak juróom-ñetti weer mu des fa nag fukki nit nag ak juróom benn fukki nit ak juróom benn ñooñu nag seen i tur nag moo nekk nii mu ku ñuy wax nag Amadou Anne Mame Balla Diouf Cheikh Faye Ali Diouf Moussa Dieye Khadim Seck Ahmed Sène Mamadou Gueye Massamba Fall Pape Ndiaye Adama Sow Demba Kebe Mortala Diop Abdoulaye Diouf Ali Diallo ak nag Demba Diallo ñii nag ñooy fukk ak juróom benn ñi nga xam ne nii nag ñoom ñoo wéy nag di des nag ci kaso bi atum 2017 bi nag daal di jeexa ñu dugg nag ci atum 2018 bi ajjuma ñaar fukki fan nag ci mois de juillet ci atum 2018 bi tribunal nag bu mbuur bañ na nag juróom ñeenti nit nag yu doon sàkku nag ak liberté juróom-ñeent ñu nag seeni tur mooy Samba Fall Mamadou Anne Abdoulaye Guèye Mamadou Guèye ma Kebe Moussa Dieye Khadim Seck Mohamed Sène Ali Diouf ak Cheikh Faye ngir bañ a juum nag li ko dalee nag ci mois de juin ba ci mois de décembre ci diggante boobu nag lu tolloog nag juróom ñett cantaakun nag ci fukk ak juróom-benn yi nga xam ne nii nag dencoon nañ leen ci kaso bi juróom-ñett ñi nag fukk ak benn ñi lànk nañ nag ne duñu lekk nag duñu naan denc gi ñu leen denc ci kaso bi nag yàgg na kenn léttu leen nag wala mu firi leen ñenn nag ci ñoom ñàkk lekk ak ñàkk a naan googu nag ñu defoon jural na leen nag ak néew di doolee ba tax na nag am na ñenn nag ci ñoom ci place fajukaay bi nekk nag ci biir kaso bi nag lañ leen yóbbu ñenn ñi nag ci hôpital nag régional nag bu Cees itam nag lañ leen yóbbu nekkoon nag chauffeuru cheikh bi ci la demee nag bay xaru ndax butéelu eau de nag la naanoon am na ci keneen koo xam ne nii itam nag xaru la doon def itam nag ci kaso bi waaye nag mujjul jàll fukk juróom benn ñi nga xam ne nii nag denc nañ leen ba tey yoon moom dafa wéy nag di lank ngir nag bàyyi gi ñuy sàkku nag mu gàntal leen ko ñenn itam nag ci ñoom seeni sëy nag tàmbalee yëngatu ñenn ñi itam nag ci ñoom bi seen waajur génnee àdduna taxul itam nag ñu dem itim nag ca denc ba ñu man cee ràññee nag ku ñuy wax Mortala Diop mardi fukki fan ak ñett nag ci mois de novembre yi nga xam ne nii nag ñoo yëngatu nag ci wàllu àq doomu aadama ngir nag ñu sàmm ko génn itim nag def nag point de presse di naqarlu nag loolu am nag ci kaso nag bu Cees bi muy ku mel ne nag Amnesty ak itim nag kuréel gi ñu tuddee RADDHO ak LSDH ak ASRED ak yeneen nag yeneen i kuréel nag bisub dimanche 25 novembre nag ci atum 2018 ministre nag de la justice nag bi fi nekkoon di Ismaïla nag Madior Fall ci la tontu nag cantaakun yooyu nag doon gereew ak itim nag waa droit de l'homme yi nga xam ne nii nag yëkkati woon nañ seeni i kàddu di leen xamal ne mbirum Madinatu Salaam mii dañoo xamul rek li ci nekk waaye nag du mbir mu tuuti ndax mbir moo xam ne nii nag bakkan da cee tuuru deret itam nag sotteeku ci kon loolu nag munta gaawee noonu loolu nag moo ci mujj nag ci atum bi ci la faim mujjoon nañ nag bàyyi nag seen grève de la faim boobu ngir lañ xamlee ne procès cantaakun yi danañ ko ubbi nag ci ñaar fukki fan ak ñett nag ci weer weeru avril ci atum 2019 ci tribunal nag grande instance nag ci kaso bi ak ñett yoo xam ne nii nag bàyyi woon nañ leen bàyyu néggandiku ñoom nag la ñuy boole muy fukki cantaakun ak leen nag ci bisub ñaar fukki fan ak ñett nag ci mois d' avril bi bisub talaata ñaar fukki fan ak ñett nag ci weeru avril ci atum 2019 ci lañ ubbi nag procès fukki cantaakun ak juróom ñeent ci tribunal grande instance nag bu mbuur atte bi nag diire na ay fan verdict bi nag doog a tàbbi ci kaw fukki cantaakun yi ak juróom-ñeent atte bi nag ginnaaw ba mu daanoo juge yi nga xam ne nii nag ñoom ñoo ko doon atte ñeenti pàcc nag lañ def nag atte bi ñoo xam nag a setal nag cee ràññee ku ñu wax Serigne Saliou Baro Aziz Mbacke Ndour ak ku ñu wax nag bi mooy ñi nga xam ne nii nag daan nañ leen ba noppi waaye li ñu leen daan nag ci wàllu atu kaso tëdd nañ ko bi nag ba noppi ñooñu nag ñu mën cee ràññee ñu wax Samba Ngom Abdoulaye Diouf Demba Kebe ak ku ñuy wax nag Pape Ndiaye ñetteelu groupe bi fukki ati yàlla nag lañ leen tëj kaso muy ku ñuy wax nag Cheikh Faye ak Cheikh Béthio Thioune mi nga xam ne nii nag moom moo jiite cantaakon yi mu des nag li ñu tudde nag ñeenteelu groupe bi ñeenteelu groupe bi nag fukki ati kaso ak juróom nag lañ leen tëj ñoom nag ba nëg ni nag ñu ngi ci biir kaso bi nag génn guñ ñu man cee ràññee nag ku ñuy wax Serigne Khadim Seck Mame Balla Diouf Mamadou Guèye Moussa Dieye Aliou Diallo Aldemba Diallo Mor Talla Diop Mohamed Sène ñu gën koo xam nag ci ëmm Adama ñu gën koo xam Sall ak ku ñuy wax nag Ali Diouf loolu nag moom moo tukkee nag ci àtte bi ñeenti téeméeri million nag lañ war a fay nag ñaari njaboot yi nga xam ne ni nag ñoom ñoo lorule nag ci àtte bi muy njabootug Baara Sow ak njabootug nag Ababacar Diagne ñi leen di fay nag mooy ñetteelu groupe bi nga xam ne nii nag fukki ati kaso nag lañ leen tëj ak ñeenteelu groupe bi nga xam ne nii nag fukki at ak juróom nag ci wàllu kaso nag lañ leen tëj ñooñu nag ñoom ñoo a jox nag ndàmpaay njabootug nag ñaar ñooñu nag lorule ndàmpaay loolu nag ci kaso bi nag ba keroog nag ñu koy fay lii nag moom moo tukkee nag ci atte Cheikh Béthio Thioune nag ak cantaakoon yi diirum nag li ñuy atte nag atte bi Cheikh Béthio Thioune nag mi ngi France tëdd nag ci feebar ginnaaw nag bu atte bi daanoo ñaari fan rek lañ ci teg bi nag génn àdduna nag ci réew moomu nag di France ci dëkk bii nag di Bordeaux ginnaaw bu mu fa tëddee nag ay fan yi feebar la génn àdduna nag ci bisub talaata benn fan nag ci weeru koor ci atum 1440 nag ci gàddaay gi talaata benn fanu weeru koor ci atum 1440 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy mardi 7 mai 2019 mardi 7 mai 2019 bi muy dem France nag ci ñim àndaloon ñu mën cee ràññee nag soxnaam soxna Batoor Thiam ak doomam nag Seydina Saaliw Cuun ci bi muy dem nag France nag ci dëkk boobu nag di Bordeaux ay médecin taalibeem nag la fekki woon ci biir médecin taalibeem yooyu nag ñu man cee ràññee Limaamu Géy ak ku ñuy wax nag Xaadim ngoom ginnaaw bu mu génnee àdduna nag ci talaata ji ci ajuma ji nag dëppoog nag muy fukki fan ci mois de mai lañ ko jëlee France nag wàcce nag ci aéroport Blaise Diagne nag bu Touba ci ndigalul nag xalifa général des mourides nag sëriñ Muntaxa Mbàkke ibnu Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke ginnaaw bu mu egsee Touba nag sëriñ Fallu Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke nag moo ko jullee sëriñ Cheikh wu Mbàkke mi nekkoon nag doomu kamu yaakaaroon nag di sëriñ Touba Cheikh wu Mbàkke moo sàkku itam nag ñu jaarale ko ci kër sëriñ Touba Cheikh wu Mbàkke nag mi mu joxoon boppam muy jaaram nag gu mujj ginnaaw bi nag lañ ko jëlee foofu yóbbu ko nag bàqiya ci fi nga xam ne nii nag fa la sëriñ Muntaxa Mbàkke fukki fan nag ci mois de ci atum ab xalifaam nag mooy Serigne Saliou Thioune ñu gën koo xam nag ci Serigne Saliou Thioune gël tàppe moo fi toog nag ci atum 2019 nag ba nëgëni Cheikh Béthio Thioune nag am na bis nag bu mu jagleel nag bisub cant cant googu nag dëgg dëgg sabab bi nag mooy seex Béthio Thioune nag moo toggoon nag ay bernde indil ko nag Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké daaray gotitim nag la fekkoon nag ku baax ki Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké bi muy indi bernde yi nag waxtu bëccëg la naaj wi itam dafa tàngoon lool ne egsi nag ci daara ji ndax nag suuf su bari taalibe yi nag di yenn bernde yi nag di ko yit nag sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke fi sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke toogoon gis ne ne daal taalibe yi nag ci naaju tàng nag la ñuy dox naaj wi itam nag bisub keroog itam tàng na tàngoor woo xam ne nii bu ñu yanoo bernde yi laataa ñuy egsi nag fi sëñ bi toog danañ jaar itam nag ci ay ker loolu itam nag defoon na ko aal nag bisub keroog bi ñu wàccee bernde yi nag ba noppi seex saaliwu itam nag doon na ko laaj nag lii nag loo ci jublu mu di ko xamal itam nag sant la rek nag laa ci jublu sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke nag di ko xamal ne man de bég naa ci sama waajur nag cheikhul xadim itam nag bég na ci ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam bég na ci buur bi tabaraka wa taala itam nag bég na ci kàddu yooyu nag bi ko sëriñ tubaa cheikh saaliyu mbàkke nag waxee nag cheikh béeco cuun taxoon na nag cheikh béeco cuun nag defoon ko nag bisu mbégte di ko sant nag at mu jot ndax kàddu yooyu waaye taxuloon itam nag mu wutal ko nag bis fixe nag ci at mi ginnaaw nag ba mu xalaatee ne nag bis bii ko sëriñ tubaa cheikh saaliyu mbàkke waxoon war naa am nag benn bis boo xam ne nii nag mooy rendez-vous nag ci at mi ci la ne daal bis yépp daal bis bi ci gën dajeeg sëriñ Touba Cheikh Salihu nag mu jël bis bi nag méngale ko ak bis bi mu gisoon nag sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke nag ci suuf taseet bisu fukki fan ak juróom-ñaar nag ci weeru avril bis bi nag bis bu umpoon Cheikh Béthio Thioune la ba tax na nag képp ku mu yaakaar ne nag xamoon nga ci dara nag dem na nag seeti la taxul nag mu xam ci dara ginnaaw ba mu dogoone nag bis bi nag war na koo xam di wax ne itam nag bu ko xamee dana ko def nag bisu cant goo xam ne nii biir réew mi ak bitim réew nag ñëpp nag danañ xam murid ci bis bii mu dajeeg borom jamono nag ci la ko am bis bi nag mujj na ko xam suñ borom nag jaarale ko nag ci soxnaam sii ñu tudde nag soxna Aysa Kan daa am guddi goo xam ne ni nag Cheikh Béthio Thioune ci appartement soxna Kan nag la fanaan ginnaaw buñ tëddee nag bu guddi la soxna si nag kiite nag ci ay nelaw di wax ne bis ba daal set avril la bi ko cheikh bi laajee nag li muy wax lan la mu di ko xamal ne daal bis ba daal 17 avril la cheikh bi itam nag doon na ko xamal ne nag nañ tëdd nag ba suba ginnaaw bu asamaan seetee nag la dem seeti nag borom suñu dajee daa mel na ne 17 avril la Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke nag dafa muuñ waaye tontuwul Cheikh Béthio nag ba tey Cheikh Béthio itam nag jort ne muuñub Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke googu mooy tekki ne nag waaw la ko wax mu jël bis bi nag def ko itam nag bisu cant muy bis bi mu dajee woon ak borom jamono ci dëkk boobu nag di teseet ñuy ñaan ca kam foboon léppam jébbal ko ko muy Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke yàlla na suñ borom yokk ay leeram guddal fanu njabootam nag gim fi bàyyi li di réew mi itam nag yàlla na ko suñ borom saafara ci barkeb jamono amin borom jamono amiin borom jamono amiin borom jamono amiin borom jamono amiin